vingt millions ki cent millions lay jar. yow mi nga xam ne yow mi nga xam ne yow yaa ngi toog ñu naan la alalu àdduna du dara tey yow boo bëggee gis kilifa googu nga dem ci moom Kaliphone jóge fële gaare kat katam yow doo ko gis Kaliphone koy gis. yow bu liggéey bu bu liggéey bu ñàkk fayda amee ak loo xam ne da torox loo xam ne ci naaj bi ngay ne. loo xam ne doo doo ci euh, da nga. maanaam maanaam yaay dem tool ya yaay sang xar ya yaay sang fas ya yaay ruuj mais heure dekk ñaan bu jotee yow doo dekk ñaan. kilifa ba la jóge andi maris moom la ñaan moom la ñu njëkk borom 4 bi borom 4x4 bi du dem te borom 4 x bi du dem tool. borom 4 ba du sang xar borom 4 x bi du fobeere karo yi. du daanu yéesi du dóoru ay kuur. yow mi nga xam ne yaa koy def tey bu dikk ñaan jotee ñaan nga nga liggéey yooyu yëpp toog di ko xaar pour ëllëg yombal xiyaam ci gaare kat katam indi ay million moom lañ koy jox mooy wane ne alalu àddina dara la <laughs> tubaab yi ñu taxaw naan leen àddina la leen yàlla may ëllëg yombal xiyaam tubaab yi amuñu fa dara dama ne la ëllëg yombal xiyaam bu tubaab yi demee safara kilifa yu bari dinañ ànd ak ñoom dem safara <laughs> parce que lu ki lu tubaab bi am kilifa yi wuñ koog ñoom ñu ngi koo séddoog ñoom dañuy tukki di lekk ci seen lekk yi di naan ki seen naan yi di dawal ci seen oto yi di utiliser seen portable yi dama ne xale yi laa wax wuti leen teraanga man nag neew ma kenn jëlil gaal gi bu ma kenn duulal xam naa leen dangeen di changer parole bu leen xëy di ma taf di ma yaar yaari ni di njeeri xew naan Pape Mbaye nee na ngeen jëli gaal gi ñeewuma kenn mu jëli gaal man day saa ngoone biram jigéen daaw ngoone mboñ mbaay ñemewuma gaal Suède laa dem di dem fay Finlande trente minutes la ma dugg ci bato bato bi toll ni immeuble Ndiouga Kébé may miir di wàccu ak ni bato bi yëngatoo may miir di wàccu asamala gaal nga def ci ñeenti fan ba juróom-ñaari fan mu jëm Espagne ay jàmbaar ngeen waaye néew ma ngeen jël gaal gi mais nag fi ngeen toll ba jël gaal gi man bu ma fa tolloon ci laa leen di mën a juger mais actuellement mënuma leen juger gis nga Kaliphone duma ko def joo gis ak li tax diw def ko xaaral ba toll fa mu toll ah. yow tey mënoo leen juger parce que tolloo fa ñu toll ñoom ñi koy def xam nañ ni lii mën nañ ci dee xam nañ ni lii seen bakken mën na ci yam waaye la mu leen jaral ba ñu def ko Kaliphone loolu ñoom la moo tax man du leen juger exact comprendre nga léegi léegi sëñ Pape sëñ Pape ci loolu yëpp tey xale yi ana ñi ñu yaakaar maanaam seen njiit yi seen président yi seen ministre yi depuis Senghor ba léegi ana ñooñu tey. xam nga xale yi Sénégal luñ leen di doyee sénégalais yi. Hmm. alalu borom barke lañ dañ leen di jëriñoo waaye duñu mës a jëriñ seen bopp. wallaahi dëgg Sénégal ñaara leen pàccoo. Hmm. xale yi Sénégal politiciens yi ak sëriñ yi. politiciens yi ak sëriñ yi ñoo jël xale yi Sénégal jeunesse su Sénégal bi di leen paacoo di dund ci seen su ma ko waxee ñu ne nag mbaaye mi ngay wax man damay wax dëgg parce que yaa ma laaj sa life laa ko waxee. maa ngi dëgg politiciens yi bu ñu soxlaa xale yi génne leen ñu taal leen tàlloo leen pneu yi sànni leen xeer te ñoom seeni doom dañ leen di tëj ci seeni biir kër. dëgg politicien bu ciy xeex ne dafa bëgg a defar dëkk bi bu xeex amee làmp yi euh, tali yay tàkk pono yi takk mbedd mi boy doo fa gis doomam doo fa gis jarbaatam doo fa gis koo xam ne sax santu politicien ba la yor yow mi nga xam ne bu demee boo xeex bi demee ba nga xam ne xeex bi assuré na ba ñu jot ci nguur ga ñu bëgg yow mi nga xam ne yaa ko xeexoon yow bu ñu toogee yow yaay gën a dee da ngay gën a sonn bu politiciens yi utiliser ba pare ba nga toog ba bàyyi xeexal ma votel ma ku ma wax lu ñaaw saaga ko ku wax lu bon dóor ko loolu laa lay doye waaye bu ma faloo doo lekk man ak sama groupe ak ñi neex ñooy lek su politiciens yi pare sëriñ yi jël woote naa kaay leen bay kaay leen witti kaay leen fomp karo kaay leen nangam ku def di nga jëriñu àdduna di nga jëriñu allaaxira àdduna bii nag moom gisuma njëriñ li xëy na allaaxira man nag loo ma cin bu naree neex bu baxee xeeñ loo ma nar a defar ëllëg yombal xiyam danga ma koy won fii ci àddina ba ma gis ko kali loo nara defar nga ne ma danga may jëriñ ci àddina jëriñ ma allaaxira ma nekk ci àddina bii kali lekku ma torox mar su ma xiifee duma lekk su ma maree du ma naan su ma doon dee yow mi nga xam ne yow laa yaakaar ci àddina ak àllaaxira doo ko yëg doo ma dimbali <laughs> su ma ñëwee sax ne dama lay jege si dañ ma naan puus fi parce que awma ma daraja faale woo ma Californie ñooñu tey jii suñ la nee demal nga dem rey sa bopp demal nga witti nangam demal nga bale demal nga xeex demal nga defal ma nangam demal nga defal ma nangam ëllëg yombal xiyaam di nga ci jëriñu te doo ci gis doomam Kaliphone njëriñ loo gis ci àddina nit bu koy joxe doomam la ciy jiital ki la naan kaay defal ma nangam kaay liggéeyal ma kaay dee ndax man ëllëg yombal xiyaam dinaa la dimbali te gisoo ca doomam toogal nga xalaat nga ne kii li tax doomam newu ci kuy séddale sa kër ngay jiital. Mm-hmm. waaye sénégalais yi amuñu xel duñu xalaat duñu réfléchir li tax ma li ma la ne Europe ay nit ñu am xel ñuy xalaat ñoo fane ne nag ak Afrique ay nit lañ waaye duñu xalaat dañ leen di nax dañuy toog ñu leen di wax ay miracle waaw kéemtaan bi kéemtaan bi miracle bi Californie li tax yàlla jël miracle yi ci àddina bi yëpp jox ko tubaab bi moo ko xam hmm. te yàlla mënoon na jël xam-xam bi mu def ci avion ba muy naaw di dugg ci dëkk yi di dem ak dara téew ko yàlla mënoon na ko jox nit ku ñuul téléphone bii nga toog ma nekk Amérique nga nekk France xale bu góor bi xaw ma fu mu nekk ñii nekk Sénégal ñun ñëpp toog di waxtaan ci benn heure nga sa kanam gi di feeñ ci téléphone bii suñ ko waxoon sañu maam yi dañ naan du dëgg tey bu doon sénégalais moo ko defar ki defar téléphone ay sëtam dañuy sukk di leen di raamal. naan leen wàlluwu ngeen seen maama defar lu àddina bépp di jëriñoo. dama ne tey bu doon nit ku ñuul a defar téléphone. nga ne allo. taal caméra bi yaa ngi dégg. ne mm-hmm. allo taal bi wax nit mu feeñ. ñu ne ñu ne Modou Moustapha Diop Kaliphone Sall moo ko defar. ñu di xola yow Kaliphone ba ci sëy dañuy donn di nekk xalifa du ñu liggéey am mm. ay taalibe te ku leen seen maam kalifon du sëriñ ñu rey la avion bii tey bu doon nit ku ñuul a ko defar dañ lay sukkal di la raamal mm-hmm. ñun africain dañoo limité suñu bopp tey yàlla daf ñuy jox ay mag ñu baax jox ñu ay kilifa yu baax kenn du ne nag Afrique amul kilifa gu baax <clears throat> kenn du ne Afrique amul mag mu baax ku ci mel ni maam xaadim rasul mag mu baax la ku ci mel ni maam Alaaji Malick mag mu baax la ku ci mel ni maam Baye ñas mag mu baax la ku ci mel ni maam Boukounta Ndiassane mag mu baax la ku ci mel ni maam Limaamu Laay mag mu baax la mm-hmm. ku ci mel ni Abbé Diamekoune Senghor it mag mu baax la macha mais gis nga mag bu baaxee yow sët bi bala ngay baax da nga ko war a gën mm-hmm. tubaab bi dañoo ñëw fekk fi seeni maam di defar ay wëtiir Californie oto yi ñu njëkk a defar ci jamonoy tubaab yi. Hmm. dafa yéemoon àddina ki njëkk a defar oto. oto mbott <coughs> oto mbott yi. Hmm. tubaab yooyu ba ñu juddoo gis oto boobu munoon nañ ne seen maam bi defar oto bii de kenn dootul mel ni moom. Hmm. waaye dañoo. doon sa baaye ko gën. te léegi ñu defar oto boo xam ne dafay naaw. Californie tubaab bi nga xam ne dafa defar portable téléphone fix loolu dafa jaaxal ñépp mm-hmm. téléphone bi mu génnee. Afrique ñëpp dafa jaaxle. fixe allo waaw ngay wax fix tubaab bi dafa ñëw ne sama maam a defar téléphone fixe xaaral ma dem fi sama maam dem. Mm-hmm. ba defar téléphone fixe ma jàngee fa. tubaab bi defar téléphone fixe jékki-jékki daal ne fii li sa xaaral ma dagg ko. Hmm. defal portable ku ne di dem di yóbbu sa portable. 3310 a génnoon ak Nokia 3310 bi naan tey tiki tey tiki tey tiki tey di ngeen a nekk di nekk di tey ko xaañ sa bopp toj. Hmm. téléphone jamono boobu ku yor 3310 boo ko jëndeewul 600000 francs wala 700000 francs doo ko yor soo ko gàddoo hmm. ñu lay seetaan si naan xool leen kii téléphone bi mu yor bu bëla Mm-hmm. man sama dënd bi laa ko daan Kaliphone bu neexoon Kaliphone bu neexoon tubaab yi dañuy taxaw daan ne fii la sunu xam-xam yam mm. parce que ki defar téléphone bi bañ koy dugal ci sa poos te doo ko branché ci sa fil kii borom mën-mën la waaye dafa am keneen koo xam ne dafa ne ki defar téléphone bii tey laa koy wan ne xam-xam yàllaa ko am yàlla li mu yor dafa bari te da koy maye te ku ñëw ñaam ko mu may la ñu ne ko loo bëgg wax foofu mu ne leen xool leen ma dinaa defar lu raw lii ñu ne ko lan ngay defar mu tudd Steve Jobs mu defar iPhone. Hmm. ne léegi sax doyatul nga di ko dugal ci sa biir poos da ngay taal sa téléphone di ci seetaan télé di ci seetaan YouTube di ci woo say mbokk bu nekkee ba Afrique nga taal ko bokku leen heure bokku leen jamono bokku leen monde bi nga nekk nga jàkkaarloog moom di wax mu lay gis nga di ko gis. di dugg moom piscine. di dugg ak <laughs> ndox mi. gis nga tubaab yi mentalité bi ñu am utiliser seen xel ba yàlla may leen lii mu leen may bu ko africain yi doon jëfee. Hmm. tey ba tey romb nañ fii. jamono africain dañuy toog ëllëg ñu focus in de future ñuy focus dans le passé tubaab day focus dans le futur mais ñun africain yi tubaab yi dañuy waxtaane le futur. xam nga fi mu ne lan la fi tubaab yi waxtaanee actuellement naka la ñuy def ba dëkk ci weer wi mooy la lune tubaab bi loolu la ñuy waxtaanee ñun nag ñu ngi waxtaane sunu maam ya lan lañ fi defoon tey bu ñu toogee ñu ngi la naan waaw ba sëriñ bi defee nangam te loolu bañ koy def sa maamaati maam judduwul. ay siècle ci ginnaaw ay siècle la ci ginnaaw dara. ñun defuñu dara. ñu ngi waxtaan rek bu maam defoon toog di waxtaane loolu. te loolu tey may ma am defoon dafa ñëw def lu mel noonu ba gën a innové waaw te loolu tey. te loolu tey ñuy waxtaanee indi leen benn njëriñ ci li ñu gisagum. xëy na nag ëllëg yombal xiyaam mu indil leen njëriñ parce que ñoom ñi ko def seen jëf ñoom la ko yàllay fay parce que yàlla nee na ku ne ak sa jëf. Mhm. ku ne li nga jëf yow yaa koy wéetoo gis nga sénégalais dafa am loo xam ne leeralawuñ leen ko sénégalais dafa am loo xam ne leeralaguñ leen ko te buñ leen te te ñi ñuy topp du ñu bëgg ñu leerala leen ko doo gis kenn ku woote langu diine ba leerala leen lii mbaa mu toog ci langu daayira wala mu toog ci télé ba leerala leen lii parce que buñ ko leeralee sénégale sénégalais dinañ yeewu parce que sénégalais dañ leen tënk ci xel dañ leen jàpp comme esclave tubaab yi dañ daan ñëw di ñu jàpp esclave léegi tubaab yi jàppatuñ ñu léegi ñun ñu ñuul ñu ñooy jàpp sénégalais te ñi jàpp sénégalais esclave ñu ngi ci biir Sénégal yaa ngi dégg tey bu leen bu ñu woowoon sénégalais nee neen bu ëllëgee yombal xiyaam nit ku nekk di nga wéet ak yàlla bay ba ba ba foog ne yow kese la yàlla bind loolu alxuraan moo ko wax gis nga nit buñ la nee ëllëg yombal xiyaam di nga wéet ak sa borom mu lay lijjanti di la lijjanti loo def ba mu la sàkkeeg ba ëllëg ba keroog ngay dee lu ci mel ni pépp suuf du ko bàyyi mu lay lijjanti ba yow danga nga naan ndakate yàlla man kese la bind loolu bu la leeree ci sa àddina rek doo toppi kenn di nga topp yàlla di nga liggéey di nga yee sa xel mi di nga nekk nit mais sénégalais dafa bëgg ku koy jay sénégalais dafa bëgg ku koy nax senegale dafa bëgg ku koy wax lu ko li ma ne sénégalais bëgg na am xaalis te nanguwut a liggéey bëgg na dugg àjjana te nangu te jaamu yàlla ñun dañoo nangu dañoo ñeme wéeru waay dañoo ñeme di wéeru addina bii nag day dox di dem yéen yéen a waaye addina baa ngi dox te gis nga xale yi nii ñu nekkee nii seen parents yi ñoo leen ko teg ak seen mag ñi njëkk ñi fi nekkoon waroon a defar nga xam ne suñu defaroon xale yi bu ñu màggee fekk fi dara. léegi dafa gis dafa am ku jàngoon alxuraan muy maam Abdul Aziz Si Dabaax mhm. kooku kenn dootul werante njàngam li ngay waxtaane nii dafa am lu si wax mooy maanaam sa diggante ki yàlla ëllëg sëriñ bi day toog ne yokki yàlla rek a si am compte kooko wax tey nit mu saaga la ne sama sëriñ moo may ram mu sama sëriñ moo may def lii ñu déglu maam Abdou lu mu wax foofu ñu ñëw. ku ci ko li ko yàlla digal. nee na bu ci rasulullah nekkul nekkul ci yàlla ko yàlla digal. loo xam ne li neexul yàlla jarul roy ci sëriñ jarul ya roy ci kenn. nee na lu neexul yàlla jarul royeeb sëriñ jarul royeeb kenn. sa sëriñ gëm ko topp ko. sa sëriñ gëmal toppal. loo man defal. loo man defal ko. waaye nag loolu yàlla. waaye loolu yàlla. sëriñ bi moomu ko. sëriñ bi moomu ko. yàlla ko moom yàlla ko moom. te ëllëg. sa digganteeg sa borom. sa digganteeg sa borom. loolu sëriñ sa rahmaanu. lii de laa dégg. Khalifa. sa digganteeg sa borom. yoonu sëriñ bi nekk si yow yàlla kese la. te tey am na ñoo xamante ni dañu jàpp ne heure ak yomal seen sëriñee toog. ne yàlla baalal sama Momadou bi. waaye seen ami amoon téléphone dama ne lu sëriñ for for for lu sëriñ rëy rëy rëy rëy rëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam moo la gën a foor parce que ba yàllay tànn daf fi bàyyi sëriñ yi bàyyi fi ñëpp xool ko ba jikkoom doy ko mu tànn ko ne ko yow laa def ngay gën gi mindeef ne ko ëllëg yombal xiyaam bu yonent yépp jaaxle ñépp jaaxle